alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa wa barakaatu nuyu sang yu tedd yi nekk ci mbaar mi yépp sang yu góor yi sang yu jigéen yi sang yu mag yi ak sang yu ndaw yi di leen indil nuyoo xalifa cheikh Ahmed Tidiane ak imaam cheikh Cissé ak waa Mérina yépp ak seeni ñaan ak ànd ak yéen ci guddi gi di toroxlu yàlla di ko ñaan lu ëpp suñ luñ jortu fi yal nañu yàlla may lu ëpp suñ jort ci barke guddi gu tedd gi ak bëccëg bu tedd bi nga xam ne passé nañ ko ci kuppëj te yëngatu jëm ci yàlla yëngatu jëm ci lu baax du gan ci saaxa yi ndax ñëpp xam nañ ko min al abai wal ajdaadi ila hada al majlisi kaanu jamian taahadu ma allahi taala tabaraka wa taala wa ahadu ma anfusihim an yakuna xarakatihim wa sakanatihim lillahi tabaraka wa taala wa talaban li ridwanihi donc buñ fi toogaatee ngir loolu dañuy topp ci kaw tànk yi nga xam ne rek ñu ngi sant yàlla bi ñu mayee ñu am tànk yoo xam ne mën nañ koo roy te fekk ñu ngi koy roy ci loo xam ne njëriñ moo ciy dellu si ci ñun sant suñuy wa suñuy waajur yépp ñi nga xam ne dimbalante nañ lillahi tabaraka wa taala ba mun a bàyyi seen gannaaw njaboot goo xam ne ñu ngi am guddi yoo xam ne dañ koy daje lillahi tabaraka wa taala walakin dañ koy daje itam wafaan lima baayahu llaha tabaraka wa taala min mahabbati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa habbati saalihiina min ibaadihi ñi nga xam ne ñoo ñu teg ci kaw yoon yi yàlla mi ñu ci teg tànnal ñu ñu ci teg ñu ngi ñaan yàlla moomu yal yàlla yokk seen leer yal yàlla yokk seen daraja yal na yàlla dëggal seeni ñaan ak seeni mébét ci seen njaboot seen gannaaw yal na ñu yàlla saxal ci yoon woo xam ne yoonu yokk rek la ci yàlla te ku yokk ci yàlla kooku moo yokk ci àddina ndax moo xam àddina lu muy tekki bu ko defee yokk ci ak ñàkk cee yokk foofu la yokku nekk mais li nga am boo xamul lu muy tekki sax boo ci yokkoo yokkoo ndax da nga yu la diisalee rek dina yokkoo waaye yokku ci yàlla mooy nit mën naa am benn segonam boobu benn nokkem boobu yàlla defal na ci àddina ak jàmme yàlla yi loo xam ne nokkem boobu rek ci la ko bàyyee ci la bàyyee ko moo tax maa ngi fàttaliku Cheikh Ibrahima ak ñoom ñëpp. dañuy wax ne ushkurullaha li anni tanafastu huna sant leen yàlla ndax nokki naa fii donc bon ku xam àddina te am ko mooy ku xam ne tanafastu huna tanafastu huna kooku moo am lu maye moo am itam lu joxe moo am itam yoon woo xam ne fa jaar ba am na fës boobu yàlla nañu ko yàlla may ñun ñëpp yàlla nañu yàlla may barke ci biir ak ci biti yàlla nañu yàlla ngir yàlla dañ nekk ko itam ngir yàlla tabaraka wa taala te alhamdulilah lii yëpp dafay tegtal ne loolu nga xam ne fekk nañ ci suñuy ay waajur ñu ngi ci ñu ngi ci parce que ñëpp a ngi bàyyi seen lu nekk ngir ñëw daje ci mbaar mi ñoom ñëpp ngir lan ngir mottali kóllëre goo xam ne jaar na seen diggante ak seeni waajur waaye jaar na seen diggante itam ak seeni sëriñ waaye jaar nañ seen diggante itam ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ngir wax yàlla ne ko ñu ngi nii tànn nañ sa yonent tànn nañ sa yoon tànn nañ ànd ak sa yonent tànn nañ tegoo moom ci sa kaw yoon tànn nañ saalixiina yi nga xam ne ñu mën a xamal ñu mën a yëkkati ñu mën a dolli tànn nañ leen itam ànd ak yow yow yàlla yàlla nañu dimbali ci tànn boobu te yàlla doomi Adama am xaqi tànn ma kaana lahumul xiyaratu min amrihim waaye su fekkee bàyyi mu ne su fekkee tànn am na moom tànn ñàkk tànn moo ko gënal tànn ñàkk tànn moo ko gënal bon ñun tamit dañuy wax rek noonu ñu ngi tànn waaye ñàkk tànn moo ñu gënal nañu yàlla tànnal boppam rek nekkal ñu boppam amee ñu boppam parce que loolu mooy dëgg te loolu moo am njëriñ te loolu moo am mucc yal na ñu si dugal foofu ndokkeel bu baax ku pëj. ak ñi daje ci gox bi yépp daje fii yépp ci guddi gi di fuuglu benn waxtu boo xam ne ñun ñëpp dañ ci daje yëkkati suñu loxo toroxlu yàlla ne ko yàlla ñu ngi nii ah haza juz'un min ummati nabiyika ahdan wa sabatan haza juz'un min qawmi min qawmi al-islam ahdan wa sabatan ala haza moo ñu dajale moom la ñuy fuuglu moom la ñu xaar jot na yow yàlla yaa ñu wax ne ci sa alquran ولدينا مزيد زيادة بوبو يو يالا نيغي تخاو سي سون تانك تروخ تو يويو دي لا نيان الله آه، مزيدا يا ربنا مزيدا يا ربنا في الظاهر والباطن مزيدا يا ربنا في كل شيء فيما نملك آه، وفيما لا نملك اللهم زدنا من فضلك وكرمك واحسانك وارفعنا يا ربي من فضل بفضلك وكرمك واحسانك وزدنا ولا تنقصنا وقربنا ولا تبعدنا يا ارحم الراحمين واغننا آه، بك عما سواك يا يلا يلا يالا لونك يالا يلا باي لودو سبوب رك يلا لودو سبوب رك يا يالا موم لاي بغ يا لاي بغ يا يلا بونيو باي دارا بونيو باي كينين بونيو باي لينين كوم نكو يونت دان نيان صلى الله عليه وسلم Baye wax na ci ñaanam wax naa ci benn wax ci Baye ma ne Cheikh nekkoon na nit koo xam ne euh, boo ko gisee rek buur ngay gis boo ko gisee rek buur ngay gis ci colaayam ci waruwaayam ci dundam ci doxam ci waxam te pourtant Baye moomu ku dëddu àddina la ku dëddu àddina la waxut xoolu dara ci àddina bon mazhar boobu ñuy gis ak xaqiqa bii naka lañ koy xàmmee naka lañ koy xàmmee ñu ngi koy xàmmee booy dem ca kanzul awliyaay da nga fekk ñaan goo xam ne allahumma aghnini bika amma siwaaka allahumma aghnini bika amma siwaaka allahumma inni asaluka an tuhaqiqa li kaza an tu'tini kaza an tu'tini kaza an tu'tini kaza wa an tughnini bika amma siwaaka ah bon soxlawul wedd lu nekk rek na ko ko yàlla may parce que yàlla la te am na ko waaye loolu yëpp na jaar diggante moom ba du ko gis ba du ko ayal ba du ko ba du ko sonal ci dara ñooñu ñoo am alal ñooñu ñoo ko am parce que ñoo xam li muy tekki ñoo xam itam bu ñu ko amee fu ñu koy dugal mooy alhamdulilah rabbil alamina nit ñi nga xam ne yàlla boole na ñëw ñun boole na boole na ñoog ñun ca ca ëzël ne ñooy nekk seen i doom ñooy nekk seen i sët ñooy nekk seen i taalibe ñooy nekk seen i àndandoo ñooy nekk seeni i wéttal ñoom tamit ñun la ñuy wéttal ñooñu tamit ñoom la ñuy wéttaloo tànn bu kawe boobu màggaay bu kawe boobu foofu la ñu yàlla génne ñu ngi ñaan yàlla mi ñu fa génnee ci ngëneelam ci mbaaxam yàlla na ñu fa saxal yàlla na ñu fa saxal bu ñu yokk yàlla na ñu yokkee foofu ndax foofu mooy amuwaay leneen lu dul loolu du amuwaay leneen lu dul loolu ay nattu la li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan ah Euh, nit boo ko mayee mu ne nit bu ma ko mayee àddina mu ne walla yàlla may na ma yàlla ne dama lay nattu nit bu ko yàlla xañee mu ne yàlla xañ na ma yàlla ne dama lay nattu ba xam noo mel na mel nag noonu lay jëflanteeg yow xam na am na am na am na nit ñu nga xam ne dëgg-dëgg amul benn melokaan boo xam ne yàlla mun naa jëflante ñoom ci dara daf leen di bàyyi rek àddinaa ngoog nekkee leen ci ni ngeen bëggee su ma nekkul ci yéen ah. تأمنا دخ آه، آه، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد بون يالا دويلو نا سي يو اوتو سي يو دارا فادا اوت سي يو دارا واي يو يا اوت سي موم دارا يا بغ سي موم دارا بون نا غناو يو يا بغ سي موم دارا ياي نيان سي موم دارا ياي نيان دوليو كو سي موم دارا نغا ديغلو نيغا خامنا نيو لا مونا جانغال ناك غاي جاري اك يالا با نيان كو ba waxtu woo ko ñaanee rek gis ñaan mu nekk ci kanam te loolu am na ndax yàlla may na ko ay góor yàlla may na ay góor yoo xam ne am nañ sañ-sañu wax ne in qultu kun yakun yàlla am na ñu may sañ-sañ boobu sañ-sañ boobu yàlla may ko jaam te ba mu ko mayee jaam yàgg na ca ba mu ba mu bindee doomu rek la sañ-sañ boobu may ko ci biir doomu seeni borom nag seen jamono dina wute jamono yu ñu koy jotee ak jamono yu ñu koy jotee dina ute ba agsi ci jamono Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima ne bokk naa ci ñooña nga xam ne amoon nañ kun fayakoonu ñu ngi ñaan itam yàlla bu ko yàlla emale ci ñoom ci moom yàlla na nekk bépp taalibe Baay bépp toppam Baay fu mu nekk rek yàlla na seen wax kun payam di yëkkuwoon yàlla mën na koo maye yàlla mën na koo maye. ah xam ngeen ne yàlla mën na koo maye te ñii liggéey nañ loo xam ne jar na yàlla may la jar na yàlla may leen ko wala qad aatayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin xam nañ ne bu ma ko joxee mu mu teg ko fa mu nekk mu teg ko fa mu war a nekk bon nag ba léegi yàlla moom nga xam ne mu ngi joxe tax xam nañu muy jox yal nañu yàlla boole ci nga xam ne daf leen di jox jox boo xam ne xam na ñii bu ma leen joxee fu ñu koy dugal wa kunna bihi alimin ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin Euh, euh, ñu ngi jotaay beneen ak fii ci Kuppëj euh, muy barab boo xam ne duruus yu bari jóge na ci su fekkee nit mën na jàng taarix su fekkee nit mën na jàng makkaan su fekkee nit mën na jàng zamaan parce que makkaan boo gis dafa am ab xariya dafa am ab xariya zamaan boo gis itam dafa am ab xariya makaan bu nekk ab xariyaam ay doomam ñoo koy jëmmal zaman bu nekk itam ab xariyaam doomi jamono jooju ñoo koy jëmmal waaye ñooy ñan mooy ña yàlla tànn ca ca makaan booba mooy ña yàlla tànn ca zaman booba te ko pëj fii ba ma nekkee xale ay dix ans laa fi tàmbali fukki at laa fi tàmbali di ñëw nit ñooñu ma faraan fekk bi sidq wa ixlaas wa wafa mahabba nit ñoo xam ne maj nañ la sax ay maam waaye ba ñooñu wàcc seen lal tëdd ci suuf wa faan wa mahabbatan wa sidqan nit ñooñu ba tey nit ñooñu ñoo fi nekk rek parce que ab xariyatul makaan yi nit kam daan génne rek lay génne ab xariyatul makaan kam daan génne rek lay génne ab xariyatu zaman itam moom itamit nit kam daan jëflanteel rek nit kooku lay jëflanteel te loolu yàlla du ko soppi inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin حتى يغيروا ما بانفسهم تيتم الحمد لله رب العالمين ن عبقريه المكان سام نانيو باغا خامني ما غيرنا شيئا ها سبق بعضنا الى الى الحق وبقي بعضنا بلا الحق ولكن وفاء واقتداء باثارهم حتى نكون اولاد هذا المكان العبقري وهذا الزمان العبقري يلا نيو يلا دغ لولو سي سين بير su fekkee am nañ makaan abqari abqari dëgg-dëgg parce que seet leen alxuraan ni mu jafee rek ku ku jàng ci dara ji xam nga alxuraan ni mu jafee boo ko mokkalee sax du tere yaboo ko ah ndax xam nga fi nga jaar xam na fi nga jaar ak moom xam nga fi mu jaar ak yow wala qad yassar na bu tax na wala qad yassar na alxuraan li zikri kenn du ko ñemee songu kenn du ko ñemee songu waaye nag wala qad yassar na alxuraan li zikri ndax na ku nekk ñemee jël sa doom yóbbu ca daara ja ne ndax dana génn alxuraan dana dana fa génn ak alxuraan te mu ngi génn ab xariyatul makaan boo fa demee da ngay fekk ne alxuraan dafay mel ni fii la dëkk dafay mel ni euh, taasu la ci làmmiñu xale yi ñëpp a ko xam ñëpp a ko ñemee ñëpp a ko ñemee jóge parce que lan parce que ab xariyatul makaan yi yëpp lii awlaada hazal makaan su fekkee ab xariyatul makaan yi am na bon nga xam ne ab xariyatul makaan itam dara du fa jógee lu mooy shay'un abqariyun في الزمان شيء عبقري في الناس شيء عبقري في الأذهان شيء عبقري في القلوب والعقول بس كر نت أجريهم أجمع جايم على الدين كيب من الحكمة والمعرفة وزيادة أقولنا كشموم نت مم كان نجرنكم مريل نماي نماي نمن نمن نت بكو بخيتم أمنا فن كتك كيبوبم بس كيالا كوكو ماي وينك نت نك أمنا يتم فوق خم نمو متبت dafa wax ne ma fish illallah yàlla rek ab xariya boobu ma am yépp bu taxatoon ak yàlla ab xariya bi du nekk moo ko nekkal bon nag kullu shay'in min allahi tabaraka wa taala wa kullu shay'in ila allahi tabaraka wa taala yàlla nag mooy def ci ay biir jaamam ak ci biir ay palaasam nu ko neexee moo tax Cheikh Ibrahima moom mu wax ne radiallahu anhu benn barab gënut benn barab kenn nit kenn kenn nit gënut kenn nit benn jamono gënut benn jamono waaye nag abqariyatu rabbaaniya mi ngi fi nag di séddale nit ñi ah abqariyatu rabbaaniya mi ngi fi di séddale palaas yi abqariyatu zama jamono moom tamit mi ngi fi ak jamono ba nga xam ne moom la ko yàlla jagale su ko defee yooyu yëpp yal nañu ko yàlla booleel ah ci suñ palaas yi nga xam ne nit ñoo xam ne abaqiratu zamanihim ñoom la yàlla yankiwal ne leen jaar leen fii ñu nangoo jaar jaar leen Mérina jaar leen Kuppëj jaar leen Koosi jaar leen Tayba jaar leen jaar leen jaar ba àgg Nigéria jaar leen ba àgg Kano jaar leen ba àgg Australie dem leen parce que antum abaqiratul makaani wa abaqiratul zaman ci yéen la lu nekk di balle yal na yàlla nañu ko yàlla gën a xamal te gën ñoo nanguloo nangul suñuy doom aussi ñu nangoo ñu nangu daara ji ñu nangu daara ji ñu nangu ca nekk ñu nangu xam ñu nangu bëgg xam ñu nangu bëgg delloo ko doo doolee ko parce que boo amut lu teg ci sa loxo woon la ne nii la dëgg-dëgg doo am dara moo tax yàlla bindal ñu ay njiit lu nekk yàlla def na ci ay njiit parce que sans njiit doo dem fenn bindal na bindal na diine ay njiit yonent yi yonent yi gannaaw bu ñu demee bindal na ay njiit yoo xam ne dañuy utu yonent yi ci kaw suuf si di def la yonent daan def ak li leen di yàlla di booleet li leen di yàlla di ubbilee waxuma li leen di yàlla di booleet waaye li leen di yàlla di ubbilee parce que jamono bu nekk nag wa madaariku haada zaman loolu itam lu lu fi nekk la di ànd ak nit ñi di ànd ak jamono di ànd ak euh, zaman di ànd ak makaan loolu yëpp mu ngi fi ànd ak yooyu yëpp su ko defee nag bu fekkee yàlla moo fi nekk di tànn nu ko neexee ma kaana lahumul xiyaratu min amrihim subhanallahi wa taala amma yushrikun da ngay fekk ne nag yàlla moom xas na génne li nga xam ne moom la war a tànn ci barab bi moom la war a tànn ci jamono ji moom la war a tànn ci nit ñi te ñoom ñëpp soo leen fekkee di nga xam ne ñii tànneef la nga nangu nga nangu boo ci teg benn baat semaine na waataanaa rek dañ ciy teg am na ñoo xam ne fekkewuñ jamono boobu waaye fekk nañ ak daam yoo xam ne ak daam yu wóolu lañ ku nekk wóolu nga sa baay amul sikk ku nekk wóolu nga sa baay ku nekk bëgg nga sa baay bon boo fekkee sa baay nekk ci lii bon na nga xam ne sama baay bi caaxaanut caaxaanewuma بوغرافي بوشي نك دنكي نك باسكو عبقرية الزمان جننا أولاد الزمان وأولاد الزمان أولاد أخرجوا أولادهم بوغرافي كل شيء دفاي عند بترتب رباني وخمنا نت منا أقفونك شي مبولم أي تاكوايم أك مبولم أي بق بقم باسكو خاصني كوكو تانل بوياغ ماي كوكو بوياغ دفا دس نك موم شي بوبم مودال دي غينديكو رك غينديكو رك tegu ci yoon boo xasee tegu tegu ci yoon du mujj nekk lu dul dafay nekk exemplaire pour doomu aadama di mën a sukkandiku ci moom nekk moroomu doomu aadamaam di sukkandiku ci moom moroomu doomu aadamaam di ko yaakaar moroomu doomu aadamaam di ko nangul parce que loolu yëpp boo amul boo amul leer gi ah te leer googu mënoo koo sàkkul sa bopp ataa un min allah yàlla rek moo koy may jaamu bu ko neex ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدrek jeex na yonentu doon ci dara yëpp yàlla la ba léegi itam yàlla moomu nga xam ne moo fi nekkoon ak yonentu sallallahu alayhi wa sallam naan ko nii la nii la yàlla moomu moo nekk ñun ci ron mbaar mi ba tey ah amul benn soppeeku yàlla moomu tam lam daan maye am na ko dara sot dara wàññeeku wu ci ah bon nag alhamdulilah rabbil alamin dëgg-dëgg ci suñuy ci suñuy kilifa yi nga xam ne jiif nañu maa ngi taseeg ay naar ñuy waxtaan mu ne da dama jaax dama jaaxle ci Sénégal ma ne ko la fa jaaxle mu ne ñoom dañoo am jàmm Sénégal dañoo am jàmm te pourtant li ñuy boole ñun ñi naar yi ñuy xeex ñàkk jàmm yëpp nga Sénégal yëpp nga Sénégal parce que Sénégal am na am na am na am na tijaan sunni am na tijaan xayru euh, sunni am na am na muslim sunni am na muslim xayru sunni am na tijaan am na murid am na xaadir am na bay faal am na lu nekk waaye yéen ñëpp da ngeen nekk ay mbokk ah yéen ñëpp da ngeen di bëggante yéen ñëpp da ngeen di dimbalante yéen ñëpp dangeen ngeen di ziyaare wante te loolu ñun mënuñoo am chia ak sunna dara noonu rek ah lii ak lii noonu rek moo mën a jaar suñu diggante yéen lu leen may loolu ma ne ko ñu dañoo am ay sëriñ yoo xam ne yar nañ ñu yéen amu leen ay sëriñ loolu moo ko indi bu ngeen amoon ay sëriñ na ko topp rek da ngeen gis ne loolu Sénégal mel loolu mooy àqi jullit bu nekk mu war koo mel waaye de alhamdulilah yàlla may nañu ay sëriñ yoo xam ne mën nañoo yar nit te yaruñ ko ci seen bopp dañ koo yar ci yàlla ko yar ci ndax boo ko yaroon boo ko yaroon sa bopp rek booy dem rek mu xuloo keneen maa la ko gën a xam yaa ma gën ba ba ba eh, mu jeex waaye nag yaruma yaroo ma ci sama bopp nag maa yar ndax ñoom ñëpp ko ci àndat dama bëgg a sóobu sa yoon bu ngay demee ñetti fan nga ne ko ana diw rek mu ne amut lo am yàlla mo am jeex na si fi gannaaw yàlla rek loolu looy xulo jeex na dafa yaatu ñëpp xañ nañ ci ha kon nak bu fekke ñu ngi am ba legi te li guddi tay gi ngeenel yoy rek lay firi don nañ lu bax ci suñu ay wajjo fuñ taxaw ñom ba am loolu ñu mëna don moy mooy dañoo taxaw babu mahabbati rasulillah ومن محبة رسول الله كانوا يتعاملون مع ربهم ها كانوا يتعاملون مع ربهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بس كموم للنا يعني سمبل سيكنا مم إن كنتم تحبون الله فتابعوني كان مو أم درجة بو شي من يفيا يب كان مو أم درجة بو يقول أنت على محمد موكام إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أنا يحببكم الله بوغن ما توبي يالا دنا لين يوم خمني بنتو بو بو ياغ شي jëflanteeg ci buntu yorante bi rek ñuy jëflanteeg yàlla yàlla di leen nangul nangul leen seen kanam nangul leen seen gannaaw insha allah tabaraka wa taala bon ci jotaay bii ñu am fii tey ci kuppa ñun ñëpp ñu daje ñun ñëpp ñu ngi jógee min masdar wahid ñëpp itam ñu ngi jëlee min masdar waa itam ñëpp itam ñu ngi am benn yaakaar benn bëgg-bëgg benn cofeel boo xottoon suñ xol yëpp benn bëgg boobu rek nga ci fekk benn cofeel boobu rek nga ciy fekk bon bu ñu amee sëriñ ñoo xam ne tarbiya noonu tarbiya bu mel noonu ba nga xam ne kenn gisul sa jëmm sa bopp waaye yaa ngi gis yaa ngi gis sa jëmm ci kii kii nga gis sa jëmm ci yow bon man mënu leen a am lu dul la yonant doon digle sallallahu alayhi wa sallam an tuhibba li axiika maa لنفسك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك كوكو كو أم سيرين متربية دوكو مانا خم دوكو مانا جودي ها أي فوق أم سيرين مو لا تربية لا تاغالي لا سبكان بوبو خم نا دافلاي بولا لا يالا ميغا خم بولا لا يونت يالا ميغا خم نا بو سي دوغي ياتو nga فيخ nga دارا جاخاتو لو تيتاتو ناراتو امولو لا نخاري واي خنا داغي ام يرمان سي جام yërmande yàlla rek ngay am ci jàmm yi bëggal leen jàmm woo leen ñu ànd ci jàmm kaay booy kaay leen ñu añ kaay leen ñu reer ndax añ baa ngi ndox mu sedd maa ngi dangaa sonn kaay to ah, ah, loolu hmm? te loolu dafa jafe boo amul sëriñ munoo koo am dama dem Mauritanie ñu am benn jotaay bu ñu waroon a jotaay ci benn jàkka ñu ooma ci من شي جوتاي بي جوتاي بي علماء ويانتي امنا شي نخم دوين تالي باي شرفاء ويانتي نت نيو بري بري بري بري نفا بمنيو دوغو شي جماني إلمان بنما بيسنغا غناو دوغو شي جماني كن امو في كاد دوكو دو ديو منكو ديد واي بلوح لول مولي ما جيحنا شي ون حكم حكم هكذا يو رك يافي يخوى لكن دوخ ما ما ما نانغو mu jox ma microphone wax wax wax wax wax wax wax wax alhamdulilah tawfiq min allah tabaraka wa taala bi may tey wax ji ma ne leen est-ce que xam ngeen lan moo ñu may lii lan moo ñu may surafaaw yaa ngi nii toog odomaaw yaa ngi nii toog nit euh, nit ñu kawe yaa ngi nii toog benn sénégalais boo xam ne du arab jógee senegal ñëw ngeen ne ko jébbal nañ la kàddu gi boo waxut fii kenn du fi wax est-ce que xam ngeen lu ñu may loolu ah te ngeen nangu waxam mu ñemee taxaw ci seen kanam ak ñuulaayam ak yéen arab yi yëpp mu ñemee taxaw ci seen kanam wax ngeen nangu koo déglu ñeme koo déglu xam ngeen loolu lu ñu ko parce que dañoo am ay sëriñ yu ñu yar jaar ñu jaar suñu digganteeg suñu bakkan def ñu ñun ñëpp ñu ibaadullah moo tax ibaadullahi la ñuy nangul abdullahi la ñuy nangul waaye nanguluñ parce que kii doomu diw la parce que kii doomu diw la mais abdullahi rek moom la ñuy nangul ah loolu mooy loolu mooy mooy boo amul sëriñ yëf yi lim neex neex te jege vraiment daf lay xeeñ waaye doo ko mos ah boo amee sëriñ nag moom voilà yow da ngay xeeñ di xeeñ le waaye boo amul sëriñ bu lay xeeñ da ngay tisooli parce que ah ñii waxuñ dëgg yow yow foo xamee dëgg bay bay xam ñu am dëgg ñu amul dëgg ah foo xamee foo foo ko xamee ah يي يي دي بدا يي دي فوق ما بدا باي روح بدا باي باي الو لولو ييب اي غنيلو يالا اي مباخ يالا يو خامني كوم ني ما لين كو واخي سي واخ جي داف كو تانال عبقريه المكان عبقريه الزمان وعبقريه الانسان نيت نيو نك بون داجي بون كيم تانو يالا ak mayu yàlla daje na yàlla may nañu ko suñu woy dawee yi yàlla na ko saxal ci ñun parce que bu xasee maye rek jeex na dootu dootu nangu la maye yàlla li mayoon doomu aadama yépp nanguwu ci dara bàyyee na ko yàlla may na may na doomu aadama lépp loo xam ne yàlla may na ko jox na ko yónant yi comme mu'jiza ndax ñu saxal ne ay yónant lañ mucjise yooyu mu leen joxoon yépp may na ko doomu aadama yi ñu ngi koy def may na ko doomu aadama yi ñu ngi koy def yàlla may na doomu aadama mucjise fa saxarna lahu riixa tajri bi amrihi ruxaan xaysu asaaba tajri bi amrihi ruxaan xaysu asaaba riixan guduwuha shahrun wa rawaaxuha shahrun def naa léegi avion yi gën nañoo gaaw loolu de ak fusil yi gën nañoo gaaw loolu de waaye kële daf koo am mujizatan min allah kii daf koo am parce que yàlla may na ko xel ak xol ak tëdbiir ne ko demal yu sukkandiku ci sa yooyu di nga am loolu def nañ ko ah yàlla may na mujizatan li nabi ñu éeg ak asamaan si alburaax ba àgg fa nga xam ne yàlla rek ko xam waaye léegi boo demee doomu aadama itam yàlla may na ko ci xam-xamam ak itteem moom tamit mu ngi jël buraaxam di naam dugg ci asamaan si dem fa fanam gën a sori ci suñuy xel loolu yëpp ay karaama la ci ay mujise la ci ay yonant waaye gannaaw yàlla may na ko ab yonant may na ko doomu aadama yëpp yow yàlla may naa la ko e an tu'jizahum hatta yu'minu bi yow may naa la ko parce que si yàq laa la ko maye li ma la may yëpp boo leen boole mën na laa may loolu may naa la xel may naa la xam-xam may naa la pexe may naa la kattan may naa la dund yëpp may naa la ko donc bon yooyu ma la ci dajalee yëpp boo dajalee yooyu yëpp bi sidq wa wa sidq fi talab wa tawajjuh amul sikk li nga àgg ci loo xam ne vraiment da nga xam ne man yàlla maa yàlla da nga xam ne man yàlla maa yàlla noonu mu ko noonu mu ko mayee yonent yi mujizatan mayee na ko awliyaa yi karaamatan walakin may na ko doomu aadama yi aada amalan amalan ndax ñoom dañuy jëf rek dañuy liggéey rek dañuy liggéey liggéey liggéey liggéey liggéey xalaat defar taftale def nii def nii def nii ba avion naaw voilà ñoo ñoo ko naaw fa saxar na lahu riixa nga avion du du du ngelaw la rek parce que boo demee safara ndox rek ñoo koy naawal ah ndox boo ci duggee ci biir safara ak ndox rek nga nekk te loolu mooy ngelaw ah tujri bi amri ruxaan soosa ah adrib eh, eh, bi asaakal baxra fan falaqa fa kaana kullu firqin ka tawdil azimi boo demee doomu aadama yi yàlla may na leen seen xam-xam ak seen i pexe waxuma la yafruquun yafruquun al baxra waaye ñu ngi tabax ay ay ay ay ay ay villa ci biir géej gi di ci dëkk ah dootul problème ci ñoom loolu yëpp dafay yàlla daf koy teralee mbindeef mii nga xam ne yaa yaa iblisu maa laka an la tasjuda li ma xalaqtu bi yadayya ma xalaqtu bi yadayya xam nga kooku ku kawe la بس قال ما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين اه ولا يو لو دل اه ولا نو نو فوف لي على كوما سيك دوم ادم ها آه. خلقت بيدي بباري ولقد كرمنا بني ادم ولقد كرمنا بني ادم خلق الانسان في احسن تقويم وصوركم فاحسن صوركم wa razaqakum min at-tayyibaat si kanam yu neex yëpp doomu aadama moo ko moom doomu aadama jooju yàlla may loolu yëpp daf ko ceeb booleel loo xam ne lépp lu yàlla bind doomu aadama rek moo ci am loolu ah euh, mooy xel xel doomu aadama la ko yàlla may moo tax xelam moomu ci la jàppee ci la jàppee lépp ñu ne benn benn jën jën jën wi war noonu yónent yàlla yuusufa yonent yàlla ah yunus ñëwagut dafa génnoon ak eh, doomam ñuy doxantu ci géej gi ñu seen benn gaal gaal gi benn nitañ ci di yow doom ji ne bàyyi lee lan la mu ne ko lee mooy nit mu ne ko li lii lu muy jëriñ ci ñun ak suñ doole ji mu ne ko moo ñu ëpp doole mu ne ko kii fu muy amee doole ba ñuy ëpp doole mu ne karawam googu ci kaw boppam bi mooy dooleem ji ah karawam googu ci boppam bi mooy dooleem ji parce que lépp lu ko yàlla di sottil mu ngi koy sottilee ci karawam googu mu soppeeku nekk ci moom xel nekk ci moom kattan moo ma nekk ci moom nii nekk ci moom nii fi nga koy gis ne ak tuutaayam bare ak karawam googu bu ko neexoon mu xeew ñu fii maag yow ah doom kii boo ko gisee mus lu ko yàlla ah respecté boobu mu respecté nit moo tax yàlla ba muy dénk ab yonentam moom la ko dénk ndax xam na ne kii respecté na nit mu mu mu garde yonentam ci biiram comme ni ngeen ko jàngee ci ay pesa ko delloo ko na ko yàlla dénkee woon dara manqué wut ci moom da da loolu yàlla may doomu aadama yépp ci ay ay xam-xam ak i kàttan ba mu ko ba mu ko bindagut may ko xam-xam dogalal ko ne ko yow yaa yëkkati ko fekk amagut wax ko lu gën a kawe loolu ne ko jaal naka xalifatan fil ardi yaa ma wuutu ci kaw suuf si ah sa wax mooy continuer ci kaw suuf si moo tax lu nekk ci kaw suuf si ak lu mu rëy rëy rek doomu aadama la gën a foor doomaa aadama la gën a kawe ah yàlla may na ko léegi xar am doomam nga jël sa meewam mi di ko jox sa doom yow bàyyi doomam yi te dara du la ci fekk doomu aadama léegi bu ko neexee xam ak doomam nga jël doomi xar mi rey ko lekk ko yàgg sa doom bàyyi ko moom muy jooy kenn du la wax dara yàlla la ko may yàlla la ko may léegi bu benn sareet dëroon fii benn xar mu daanu eh xaram diw ma jeex na si fini waaye su fekkee ne nit la dër mu daanu bala faa jógee da nga xam ne kii yàlla ko teral da nga xam ne kii yàlla ko teral terale ko nag ak xam-xam boo xam ne wa allama aadama al asmaa kullaha mooy xam-xam boo xam ne waxtu wu nekk nag xam-xam boobu dafay feeñ ci doomu aadama mu di ko feeñale ci façon feeñal bu nekk nag dina ko feeñal technologiquement nit ñi di ko gis dina ko feeñal spirituellement nit ñi di ko dund di ko yëg ci seen biir bopp yi di ko di ko dund muy neex ak ñoom gën a neex ñi nekk ci technologie bi bilaa am nag ci ñun ñi ay moment yoo xam ne dafay neex a neex neex a neex ci yow ba da ngay yaakaar ne àddina bi yëpp nii la mel fekk àddina bi yëpp mel nii benn moment bu jaara yàlla jaarale la ci yow pour xamal ne la nii laa nekk ak yow man dama baax te dama bëgg lu baax ci yow ah technologie bi lu mu lu mu kawe kawe kawe boo ci duggee ba ba ngay wàccee da ngay tiit ndax dinaa wàcc ci jàmm boo avion bi dinaaw bala ngaa kontaan avion wàcc ci suuf ah boo duggee ci oto bi bala ngaa kontaan mu gaare ba nga wàccee ba dugg sa kër nga door a kontaan fii nag moom boo duggee da ngay <sighs> fay neex yéppay yaatu doo doo bëgg génn doo bëgg a wàcc doo bëgg a génn doo bëgg a wàcc ah, wante nag yàlla bëggee wu ko noonu dafa bëgg quelquefois nga noppaloo xuzu li anfusikum raaxatan saatan fa saa quelquefois noppal leen seen bopp yi nekk génn leen ci yëpp noppal seen bopp dem leen ngeen neraw dem leen ngeen añ dem leen soxna seen jabar yàngoo dem leen waxtaan ak ñoom tout ça yooyu yëpp yàlla may la ko façon boo xam ne bu yomb la bu neex la pour may ko jullit neexaay boobu moo ko xam neexaayu àdduna jullit moo ko xam mais yëfër

munoo ko yàlla moo bind àddinaam moo ci tëral ay ordre lam nu ko neex yow boo demee ba ne tëral nga yàlla ñëw ne la voilà bii nag loo ci xam xanaa bi ngay tëral da nga koo fàtte woon ah nga ñëw mu indil la beneen bii loo ci xam ah, moo tax bët bu set rek nga gis ay kéemtaan di wàcc ci seen biir barki dem Australie lakk na lakk goo xam ne fi mu ne ñu ngi seet Australie lu ko lakk fekk def nañ seeni machine ba ne asamaan si lu lu ci nekk ci diggante asamaan ak suuf ñoom xam nañ ko waaye xamuñ lakk googu fu mu bàyyi ko ba lakk leen Australie ah, ak eh, Amérique ay métit yu métti di fa xew kenn xamut fu muy bàyyi ko di ko def ci biir benn benn yëhoot bërki démb ci nga xam ne demoon nañ ba nekk cheikh cheikh yu leen di jàngal xuraan jàngat ko jàngal xuraan jàngat dajale moroom mi yëhootam yi ne leen xam ngeen ne alxuraan ji mooy dëgg xam ngeen ne ki indi alxuraan ji mooy yónnant dëgg ñun dañuy nax suñu bopp rek di nax nit ñi waaye liñ nekk dara du ci dëgg ñu ne ko gis nga wax boobu boo ko fi waxatee dañ lay wàcce mu ne man wàcce naa sama bopp ba pare pour ci seen yéen wàcce naa sama bokkatuma ak yéen dara ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadu rasulullah te ci seen kilifa la ca biir israil la defee loolu waaye loolu loolu bett na leen loolu xamuñ ko xamuñ kooku bi muy liggéey ñi koy fal def ko kilifa muy seen kat musuñu xelaat ak seen machine lu mu reey rëy musuñoo xelaat kooku li nekk ci biiram ak li muy nara gëné génne suñu suba ak lu muy nara gëné wa xam nañ d'accord mais nak amna fo foo yàlla rek mo fa nekk boo nekkatut tok yàlla do ko xam yalla ñu yàlla xamal yàlla bu baaxa baaxa Euh, sëriñ yi yiñ xam yi leen yàlla xamal yépp dañ ko dul wax parce que bëgguñu tiital nit ñi ah waaye inni alamu alam aqul lakum inni alamu min allahi ah maada ah, mu ngoog jamono bu nekk kooku di wax loolu mi ngi fi اني اعلم من الله ما لا تعلمون مين في مين في جامعه بنات باسكو نون لوكو يالا بيندي اك نيت ني اك ني نيك فيك نيوم اني اعلم من الله ما لا تعلم باسكو يالا بي خمر ادم واعلم ادم الاسماء كلها يب ادنا بو فموي تامبالي با فموي جيهي يب من سي بير واعلم ادم الاسماء كلها موتاخ يونس صلى الله عليه وسلم مو kii mujj dund àddina tukki xam naa ko kii mujj judd judd àddina tukki xam naa ko xam naa fu muy juddoo sallallahu alayhi wa sallam fu mu koy xamee inni aalamu min allahi maa laa taalamu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu yéenay liggéey Faydu Baay bi Sidi Barhama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey Faydu Baay bi Sidi Barhama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV yàlla yàlla jox leen